aji ñu ngi ci combat spécial bi ndeysaan mu war a dox ci diggante Modou Feugeul ak ki nga xamante ne moo doon Siteu waaye nee naa la xale ñuy bëri drapeau bi nga xamante ne mooy bépp chauffeur camion arbitre baa ngay dàq yooyu arbitre baa ngay dàq yooyu arbitre baa ngay dàq yooyu arbitre baa ngay dàq yooyu ndeysaan mbokk nekk ci biir géew gi mooy combat spécial bi moo war a ci Tonn Siteu lamp yi dañ ko taal mu leer lamp na tàkk ayca Tonn Siteu ak Modou Feugueu la Tonn Siteu ngeen jàkkaarlool Modou Feugueu moo leen woon ginnaaw daa bëri ay turandoo ndeysaan Modou Feugueu la ñu noon rakk la ci ci rakk la ci Daouda Sandwich ama bu Malika moo ko fi mujjee daan arbitre baa ngi wax ak ñaari mbëri nee na leen ngeen arrière nee na leen ñu xaar ñu taal lamp yi combat bu doy waar ay ca arbitre bi sifflé na génn seen diggante Fallou Tons Siteu ngeen jàkkaar lool wan ginnaaw ndeysaan rakki fëgala ak rakki taw de sandis ñoom ñaar ñi ngi noonu waaye wax naa la ko sànq to Siteu dafa jël combat bi bi mu jëlee combat bi ñu bëri na ko war a woon a jël combat bi lu tax waru ko woon jël waaye nag lamb xare ba dar la boo jëlul loo xam na ñëpp dañ naan doo ci génn nga génn ci doo yegg fa nga jëm dëgg la kon tey to ñi naan mën na daan Modou fëgala ak mënu koo daan ci kanam tuuti dina leer ñoom ñaar ñu ngi noonu mu doon combat spécial de la soirée journée Ousseynou Laye production ñu ngi noonu toog Siteu moom la ñu jàkkaar lool Modou Feugeul la moom moo nu wan ginnaaw. Ama bu Malika la fi mujjee bëreel moom Modou Feugeul. Ama bu Malika jëlee ci ndam. ki mooy toog Siteu fi mujj dafa ñàkk. kon tey combat boo xamante ne si combat bu am solo la. ñoom ñaar ñëpp dañoo ñàkk. waaw ñoom ñaar ñëpp kon dañoo ñàkk combat bu am solo la waaye tamit ci toog Siteu ndax toog Siteu bi da ko jëlandoo woon ak beneen combat mu njëkk a bëre boobu lekk avance bi waaye liñ naan ku lekk avance te du pom. Ah, ko fay. faa mu fay ko. Ah, moo tax tey mu ñëw bëre si ko kon ñoom ñaar ñi ngi ci biir géew bi di lewtoo Tooñ Siteu moo Modou Feugeleu ñoom ñaar matu gëm naa ne buñ jàppantee nag mu jeex. buñ jàppantee làmb ji jeex. waaw ñoom ñaar ñu ngi ci biir géew bi Modou Feugeleu lu muy def nii yaa ngi iti réew naw loolu adversaire bi ñoom ñaar ñu ngi noonu Tooñ yi wax naa leen ko moom moo bàyyi ko école de lutte daara ji Modou Feugeleu moo bàyyi ko Lamsar di rëq ci ki moom mooy Feugeleu. waaye di rax ci ki nga xam ne moom mooy Daouda Sandwich ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi lewtoo Tok Siteu mi ngi jiital tànk ndeyjoor Modou Feugeula mi ngi jiital tànk ndeyjoor ñoom ñaar ñu ngi bëree di dox latéral maa la dox ñoom ñaar ñu noonu Tok Siteu cokkaas na waaye dalul Tok Siteu ak ki nga xam ne mooy Modou Feugeula ñoom ñaar. drapeau chauffeur camion yi la. drapeau chauffeur camion la camion yi nga xam ñooy daw diwaan pël ñi nga xam ñooy daw sàngal kam. ñi nga xam ne ñooy daw Malika ñi xam ne ñooy daw Cambérène un croisement Cambérène ñëpp ñëw nañ tey ndax seen drapeau la waaye ñaari xale yaa ngi noonu ñoom ñaar ñëpp dañoo saf mbër nag macha allah Modou Feugeula ak Ton Siteu ñu ngi noonu ci biir géew bi ñoom ñaar waaye suba matu. waaw ah suba eh. Siteu bu Ngor ak ki nga xam ne mooy Naaru Sokaas. laal nga bu baax. ñoom ñaar ñooy jàmmaarloo fii suba nga xam ki nga xamante ne si moom moo ñu fi woo suba. ah muy kan matul laaj naa la ko. muy petit production. petit production xale bi nga xam ne moo nekk ci yoon. ma tuddee ko le Benjamin des promoteurs. gis nga tey matu mu ngi noonu de borom tekki ma TV ndeysaan suba la ñu woo Cité bu Ngor ak ki nga xam ne mooy Naaru Sokaas. Cité bu Ngor suba ndax day confirmé. waaw parce que Cité bu Ngor dafa am ci lu mu jógee digganteem ak Alioune Sèye Junior ñëw jël Naaru Sokaas ñëpp ne jël na combat boo xamante ni si combat bu doy waar la parce Naaru Sokaas tamit. dafa am ci lu mu jógee muy Liss Ndiago mu dóor ko mu daanu kon suba dafa am beneen kanam bu woor war ñëwaatee moo tax ñu ne combat bi est dina yomb ci Siteu Ngor mais Siteu bu Ngor xale la boo xamante ne si bëre bi mu yor ak mbooloo bi koy topp ku munul daan amul ndax ndaanaan la. doon naaru dégg naa ñu ne fi mu ne nii daa yokk waaw naaru sokaas yokku na poids par rapport ak li mu indi contre Liss Ndiago par rapport ak li mu indi contre Baba Diakhal waaye nag nee na li ko gën a metti moy beureum ak Liss Ndiago looloo ko gëna metti métti. moko gëna metti gën moko gëna metti tay nak gën da koy rectifier voilà wala day wala sita bu Ngor mom day relancer wu dem fu mu jëm waye nak lu ci mënti xew mom combat bu neex lay doon combat la bo xamanteni ci amateur yi yaakaar naa buñ dayé ñom ñaar dinañ kontaan ndax ñom ñaar ñëpp ay bërekat lañu spécial bi wara dox ci digënde caatu jollof ak Fourière. jollof ak Fourière Fourière xam nga ne daanal la ndax Fourière suma ma juumul arène nationale bi bëre na fi ak ki nga xamne mom moy bébé Diène moom Fourrière bëri na fi ay naataangoom yu bëree bare bare bëri kon moo caatu jolof combat bu neex lay doon waaye ñaari xale yi ba léegi matuñu. ba tey ñu ngi léwatoo di dem rek. di léwatoo ñoom ñaar. dañoo war a bëre wala ñu xam luñ def. dañoo war a parce que combat yi di jaar yëpp dafa neex te ñoom ñaar seen combat bi bokk na ci combat yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy bàyyi xel ci journée amateur yee ko bëgg. waaw ndax ñoom ñaar ñëpp ay ndaanaan lañu. xoolee ca kaw fee ñëpp a ñëw tey. dañuy ñëw bàyyi dañoo am jom chauffeur camion ñoo am jom mu ci nuyuwaale Abdoulaye Tall nga xam ne moom it chauffeur camion la di jàmbaar Tooy Sita ak Modou Feugeula ñoom ñaar Tooy a dugg na léegi daa génnaat Modou Feugeula luy xew ñoom ñaar Tooy Sita Modou Feugeula ñoom ñaar ñuy xeex lan mooy xew Tooy Sita daw na jël ko Modou Feugeula door na ko tànk jàll lu xew lu arbitre wax ah am na lu xew de arbitre joxeegul am na lu xew lu arbitre wax lu arbitre wax. lu arbitre wax lu arbitre wax lu arbitre wax lu arbitre wax lu arbitre wax ñu déglu arbitre c'est le meilleur terrain lu wax arbitre lu wax ndax day joxe verdict ah jox na Tossir de victoire bi arbitre nee na Tossir de daan la Modou Feugueleu la lu ci xew daal ñu leer am na lu xew. ah mu njëkk bi euh, Modou Feugueleu la moo daan. am na lu xew mais est moo daan. moom bi laal na suuf. est ce que moo daan nañ nañ nañ xool image yi. waaye maa est ce que duñ yóbbu vaar. leer nañ xool image yi mu gën a. est ce que duñ yóbbu vaar ñu xool. am na lu xew de. bëri nañ comme mbëri mag yi. waaw dañoo dagg licence ñun ñu dagg licence. waaw suñuy bëri nañ ñu ni vaar bi teg ko. nañ ñu ni vaar bi teg ko ñun ay xale lañ mais dañoo am licence. ñoom bàyyi ngeen licence yi ñor ñun moom lañ yor. nañ ñu ni vaar bi booy bu ko dóor tànk ba bëgg a somb moo tax ma bàyyi. yow da nga jàpp dafa daanu. waaw waaw xaaral ma wiiri Babacar a koy génn Babacar mais du pour mbëri mbay kese mbëri mbay ñun ñoo leen gën a sonn ci làmb ñun ñoo leen gën a sonn ci làmb barke Serigne Touba làmb jàmm lu ma dajul comme ñoom lañu respecté te yàlla tax ngir yàlla yow action bi nga ko taari nag ko dóor tànk dama ko dóor tànk boobu samp ma koot la mu roccooku boobu yaa samp bu boobu samp moom du ma ko bàyyi ñu ngi toog sama kanam bi mooy ñaari yoon ñu ma koy def kon bàyyi bi nga ko bàyyi moo tax li li ci am. barke Serigne billahi wallahi taala bi mooy ñaar yoon ñu ma koy def man lan la lan laa def si lamb damay daan ba gis bi stade bi ñoom ñu bañ te ari mu ngi taxaw man ñuy jàppale ngir yàlla di ñu indil vaar bi. léegi lan mooy solution bi. non damay dugal recours. damay dugal recours damay dugal recours mais jëloon nañu.